jeunes yi da ngay gis soof rambe dimanche le matin ñoom ñëpp ci tali bi la ñuy football mais Wakaam est-ce que xam ne amuñ terrain de foot AS compliqué hmm? amuñ terrain de foot hmm? hmm? ngor ngor ngor ngor ngor ngor pourquoi li fi di woon conflit bi entre village euh, waa ngor yi ak euh, caserne gendarmerie bi yooyu moo warul sax di am ci réew bu normal. yow gendarme yow tu es censé yow nga war a protéger communauté bi mais ngay nekk en conflit ak communauté bi bay xeex ak ñoom. ci lan ci lan suuf suuf boo xam te ne xëy na moom moo ko moom. est-ce que tu te foofu espace la boo xamante ni c'est un espace boo xamante ni dañ ko waroon bàyyi foofu pour sax les événements culturels yi am ngor. Mhm. les événements culturels tu vois. parce que dëkk boo fa nekkee boo nekkee ci dëkk da nga war a am ay ay ay ay ay ay stade ay centre culturel ay espace yoo xamante ni parce que nit du lekk ak naan ak ak ak ak tëdd nelaw rek lay dundee nit dafay soxla di bégal xolam am tu vois mais tey jii ma lay wax ni tey jii boo jógee Ngor di ñëw di ñëw centre ville mais monument de la renaissance dootoo ko gis mhm. immobile yi dañ ko nëbb mhm. boo jógee teen centre ville di dem Ngor mais monument de la renaissance dootoo ko gis immeuble yi dañ ko ëmb léegi loolu kooku ban sens lan ban sens la monument bi am fi mu toll ni hmm? ban sens la nga defar monument ba pare tabax ay immeuble ci katam kon kon man lii laa mën a woowee comme ni ko ñeneen ñi di waxee ah mhm. mooy leg bi lekk empo empoisonné la kon mooy li nga xam te ni moom la fi Macky Sall bàyyi. Mhm. jox ko le président Bassirou Diomaye Faye ndax déjà ñu ngi wax ay salaires yoo xam te ni yu bëri yu ñu yokku sans pour autant moom mu mu jot ci. Mhm. rax ci dolli tam comme yi ngay wax nii ay problème mu suuf. Mhm. surtout problème mu suuf ah. que lii bomb la quoi. kon lii mën naa ko jàppe ne ndonoo gi dañ ko euh, poison la daal ci gàttal. Macky Sall je pense je pense que. Hmm, normalement peut-être que Diomaye je ne sais pas lan mooy vision ak lan mooy philosophie par rapport ak euh, euh, par rapport ak euh, hmm, ki mu remplacer Macky Sall ni mu ko gisee peut-être consensus social ak ba ñu commencer ci ay xeex ak xulloo ki xëccoonte mais pour man Macky Sall Diomaye xam nga suñu dernière émission yi maa la ko waru ko woon sax jox sunu avion waaw woon sax jox suñu avion présidentiel waru ko ko woon jox parce que avion bi moomu ko contrat am jeex na ci guddi gi buy voyagé la voyagé ak xaalisu boppam paax ak xaalisu sénégalais yi ak xaalisu sénégalais yi la su jomaay moomu ko <laughs> ngay jox sunu avion ak sunu kérosène Macky Sall pour combien de temps fu mu ko teg kon kon yow da ngay rejoindre xanaa kon kii kii di kii di Abdoul Mbaye mi naan euh, avion présidentiel bi sax dañ ko war a jaay ndax liñ ci war a faj ci ci ci ay jafe-jafe yu nekk ci réew mi bëri na lool. bon avant ñuy dugg ci jaay ay avion mais il faut que ñu def compte ba xam <laughs> Diomaye lan la fekk ci dëkk bi est-ce que il a des problème yu économiques yu war a mën a pousser. donc hmm? commencé naa def point waaye lim fi fekk metti na de. Hmm? li fi commencé fekk nii bëri na de. bëri na ci jafe-jafe de. ah na woowaat mag yi et il faut que ñuy communiquer ak askan wi ah xam doo toog fële naan euh, jafe-jafe yi fi fekk wala jafe-jafe yi laa fi fekk mais il faut ngay communiquer ak parce que nañ foo xamante ni yow da ngay yanu askan bi jëm ak ñoom fan il faut gouverner avec le peuple il faut gouverner avec le peuple. Mm-hmm. il faut gouverner avec le peuple il faut nga informer peuple bi xamal leen dëkk bi fi nga ko fekk. mais doo fi nekk di leen yanu jëm ak ñoom fan et am na loo xamante ne alalu dëkk bi la képp koo xamante ni da ngoo sàcc wala nga jël loo moomul da nga ko war a delloo sa dañ ko war a dem foqati ci yow mm-hmm. amul amul warul war loolu warul am sentiment mm-hmm. kooku warul am sentiment mooy goqi suñu ay million goqi suñu ay million mm-hmm. est-ce que yaa ngi dégg wax ji tu vois donc euh, euh, euh, loolu waruñu ko sax waruñu ko sax kafe warul mën a nekk sax benn benn question de kii morale dafa war a nekk loo xamante ni da ngay maandu warul nekk lu ñuy négocier lu ñuy négocier parce que moom moo ko alalu askan wi la du lu ñuy négocier quoi du lu ñuy négocier du lu ñuy masla du lu ñuy rafetal te am na nu muy demee day mel ni comme lu ñuy rafetal la kan moral loolu loolu loolu loolu loolu kii la loolu loolu loolu sentiment la parce que li ñu fi dégg ci rapport yi. sentiment la sentiment la sentiment la parce que yow déjà fi mu toll nii ñu ngi ñëw yaa ngi indi rapport xam nga ñu ngi doon wax ni léegi quatre-vingt-quatorze milliards yi. léegi yi Sonko doon wax la détournement boobu c'est c'est confirmé. bërki démb euh, Mame Mbaye ñaa taxaw fi daal di ne rapport am na. waaw pré rapport. rapport am na <laughs> mais imagine toi barke yow ñaata nit ñoo dee ñaata temps lañ ci per ñaata énergie lañ ci per mm-hmm. hmm? mm-hmm. te pere rapport boobu léegi moom mooy ñu génn ñu am na te dañ koo seetal boobu moom maam Mbaye Niang xam nga ñi xam lan mooy suñu problème politicien yi. Mm-hmm. il insulte notre intelligence. xam nga fal nit mu jiite la ba pare respecté wu la mooy Sénégal quoi. xam nga waaye Macky Sall moom il faisait la promotion des ignorants quoi et des insulteurs publics est que comprendre nga xam nga mais yow Mame Mbaye Niang bu taxawee ne ñu rapport am na dëgg-dëgg rapport am na mais rapport bi ñoom kañ lañ ko jénnee sax da ci janvier bi. Hmm? parce que xam nañ ne instance yi ñu toll ni affaire yi changé na. Hmm. coow coow mi ngi am ñuy doog a jénnee rapport boobu. Hmm. mais Amadou Ba lan moo taxoon tey jii moom munul woon wax ni pré rapport am na Mame Mbaye Niang ba mu fiy démissionné dimanche. seen kanam la Amadou Ba ba muy wax ni Mame Mbaye Niang laa yaakaar ni moom moo jénnee rapport bi ci émission Maïmouna Ndour Faye la. mais foofu yëpp ñun ñu ngi koy toj tu vois Amadou Ba xamoon na ni pré rapport amoon na Macky xamoon na ni pré rapport am na. Hmm. Macky xam na ni pré rapport am na. mais ñoom seen objectif moo doon Sonko bañ a nekk candidat ñu utiliser kàddoom boobu pour dénoncer ko diffamation hmm. dem ci seen objectif mooy éliminer ko. Hmm. loolu complot la woon ko. léegi nag loolu yëpp dañuy bàyyi mu sedd. je ne pas hein. de façon mooy sonk moom lim ñu jaay mooy projet bi. Mhm. projet la ñu jaay. te lim ñu jaay mooy que ni dëkk bi dafa bëri sàcc. Mhm. lim ñu jaay mooy que li mu ñu wax mooy dëkk bi alal am na fi alal boo xamante ne li Sénégalais yi di liggéey ak ñiy liggéeyee Sénégal bu ñu fayee li ñu war a fay Sénégal soxlawul muy lebi kenn loolu la waxoon. Mhm. léegi nañu fexe Sénégalais yi liggéey. nañu fexe ñu sàcc alalu askan bi ñu delloo si ko mhm. nañu fekk étranger yiy liggéeyee Sénégal ñuy fay taxe fii biir Sénégal mhm. ñu xam ba pare ñu protéger ressource naturel bi mhm. fexe ne ñu fexe ba sénégalais yi liggéey ba nga xamante ni dinañ mën a contribuer sur le développement social loolu lañ leen di laaj fi tollu toll nii léegi nag ñoom bu fekkee ni gis nañu xam nañu ay sàcc bàyyi leen ñu dem nañ jël seeni responsabilité waaw nañ jël seeni responsabilité mais euh, li tax ñu fal mooy ñu jàpp sàcc yi nangu lu ñu yor dugal leen ci kaso bi parce que loolu rek moo mën a faj affaire bi ah jàpp sàcc yi jël li ñu yor weer leen ba ñu ne fàng ba pare dugal leen ci kaso bi. kon ni ñu publier rapport yi noonu nga bëggee tamit ñu fësal itam tuuru ñi nga xam te ne jàpp nañ ne dañoo jël lu ñu moomul. waaw lu askan bi moom. mais c'est vrai. ba pare itam. topp teg leen ay daan teg leen ay daan. loolu mooy mën a permettre ci kanam kenn dootul sàccati. mooy warul yem ci génne rapport. déedéet. déedéet warul yem ci génne rapport ñi ñu rapport bi ñu ñu épinglé justice na def liggéeyam. Mm-hmm. ñu ci coupable ñu nangu li yor dugal leen ci kaso bi xam def nag alerte dal ne ku fi jaarati fii ak alalu askan wi fii lañ lay jaarale jaarale yow tamit loolu dafa leer loolu amul sikk sàkk amul sikk sàkk te loolu danga ko war a da nga war a informer askan wi parce que yow yow yow jaamu askan wi nga askan wi ñoo la ne parce que xam nga nguur boo soxla sax nga war a jàmm mais yow nguur xam nga lan lañ la jox alalu askan wi lañ la jox ak doole askan wi mm-hmm. nguur lan lañ la jox alal euh, euh, euh, yat ak jaasi waaw ni nga koy waxee alal pour nga dimbali ci da nga war a sàmm alalu askan wi dimbali ci askan wi mm-hmm. yat wi mooy ku wàcc yoon nga teg ko ci yoon léegi nag ñiy sàcc alalu askan bi ñooñu dañoo wàcc yoon. wàcc yoon. dañ laa war a dóor yat nga teg wàcc yoon te yat boobu mooy justice. xam nga loolu yoonu Diomaye waru ci nekk justice moo waroon def liggéey bi. Mhm. foofu procureur moo war auto autosaisiru procureur de la république moo war a autosaisiru toutes les organisations yi nga xamante ni ñoom lañ dénk ñuy saytu ñoom lañ ko dénk daal ay OFNAC ak ay ay ay ay cour des ay ñu mu tuddati mais hmm. ñooñu ñëpp ñooñu mënuñu fa nekk alal bi di leen dëkk bi di leen fay ci alalu askan wi pour ñu sàmm alalu askan wi te ñooñu duñ jàpp kenn voilà ban sens la amul benn chance OFNAC ba mu fi ñëwee ba léegi OFNAC ba mu fi tàmbalee ba léegi kan la fi mës a jàpp te mbir yi li ci soof mooy dañuy jàpp nit ñu toogaat tuuti ñu ne kii dañ ko doon tuumaal setal nañ ko parce que waxoon nañ ko fii ak euh, Mamour Diallo 94 milliards yi. alors xam nga léegi nee nañ jékki saa ñu ne léegi Ousmane Sonko moom. Macky Sall moom ay jamono moom jamono moom. protéger pro Macky Sall jamonoom protéger sàcc la fi nekkoon. fii jë ñu fi ku fi sàcc ay liste jàmbur dem te feeñee ji biir pale waaw ñu koy wër ñu jékki saay rek gis photo bi. ci photo bi biir mu yorob enveloppe. yaa waa naan waaw waaw waaw biir bureau Macky Sall. waaw ah. il n'était conscient. Macky Sall c'est une catastrophe c'est un accident pour le Sénégal i était nuisible pour le Sénégal Macky Sall hmm. ah. te fi mu toll nii te fi mu toll nii liggéey bi benn parti bi lañu ñu réussir benn parti bi mooy administration bi lañu ñu fi jëlee état bi mais des na justice bi ah il faut que ñu raxas ko. Hmm. ah comment raxas justice ah, mais euh, comme ni ñu ko forme de nomination yi fa daan am xam nga Macky Sall moo doon nommer les juges. waaw loolu moom projet bi teg nañ ci lu leer nañ quoi ah. mais ci wàllu nomination yi sax non.